sëriñ Masamba Faati Bousso sëriñ Masamba Faati Bousso mi ngi gane àdduna ci atum 1865 ci dëkk bu ñuy wax Afé Afé nag mi ngi ci suuf sii di Saalum ci wetu dëkk bii nag di Kaffrine ci dëkk boobu la sëriñ Masamba Faati Bousso mi feeñe jamono ci atum 1865 ma Masamba Faati Bousso di doomu soxna Faati Balla Mbàkke soxna Faati Balla Mbàkke ak Mamor Anta Sali Mbàkke mi waajur ku baax ki sëriñ Tuubaa Seexul Xadiim ñoo bokk Maam Balla Mbàkke soxna Maam Faati Balla Mbàkke moo meññ sëriñ Masamba Faati Buso mi sëriñ Masamba Faati Buso mi tim nag waajuram wu góor mooy sëriñ Busoobe Buso sëriñ Busoobe Buso mi nag moo nekkoon magu soxna jaaratullaahi sëriñ Busoobe Buso mi tim nag moo nekkoon nijaayu ko baax ki sëriñ Tuubaa Seexul Xadiim moo meññi sëriñ Masamba Faati Buso mi sëriñ Masamba Faati Buso nag am na ñu bokkal soxna maam Faati Balla Mbàkke mi ak sëriñ Busoobe Buso ñu ràññee ci taawu sëriñ Busoobe Buso ba di Cheikh Omar Fuutiyu Buso ibnu soxna Faati Balla Mbàkke ibnu sëriñ busoo busoo ak ku ñuy wax soxna xari faati balla busoo bintu soxna faati balla mbàkke bintu sëriñ busoo be busoo ak sëriñ mbàkke busoo bu gedee ibnu soxna faati balla mbàkke ibnu sëriñ busoo be busoo ak moom sëriñ masamba faati busoo ibnu soxna faati busoo ak sëriñ busoo be busoo sëriñ masamba faati busoo ñett la bokkal sëriñ busoo be busoo ak soxna faati balla mbàkke ak moom muy ñeent sëriñ cheikh omar fóotiyu busoo mi moo meññ sëriñ moo roqaya busoo sëriñ moo roqaya busoo Buso moo meññ sëriñ Ceerno Buso mi toog toogaayam jamono ji ñaareelu doomu soxna faati balla mbàkke ji ak kii di sëriñ Buso bi Buso di soxna xari faati balla Buso moo meññ sëriñ baara ñang sëriñ baara ñang moo meññ sëriñ Sadex ñang mi ñépp xamoon ci gedee sëriñ mbàkke Buso di ñetteelu doomu soxna faati balla mbàkke ak kii di sëriñ Buso bi Buso moo meññ sëriñ Moodu Buso mi ko njëkk a wuutu ñeenteelu doomu soxna faati balla mbàkke bi mooy kii di sëriñ Masamba faati balla Buso sëriñ Masamba faati balla Buso sax lañuy waxtaane tey jii mooy ñeenteelu doomu soxna faati balla ak kii di sëriñ mbusoobe buso sëriñ masàmba faati buso mii nag kon ñett ñooñu la bokkal waajur jigéen ak moom muy ñeent ñoom ñeent ñooñu seen waajur woowu di soxna faati balla mbàkke mi leen kii di soxna xari buso ak kii di sëriñ seexu buso ak sëriñ mbàkke buso ak kii di sëriñ masàmba faati buso mi nekkoon caatum soxna faati balla mbàkke ñoom ñeent ñooñu seen waajur jigéen woowu di soxna faati balla mbàkke mi ngi ci dëkk boobu di aafe aafe nag mi ci wetu dëkk bii nag di Kaffrine foofu sax la dañ ko jébbal boroomam kon waajuru sëriñ mbàkke buso ak kii di sëriñ seexu buso ak sëriñ masàmba faati ak soxna xari buso mi ngi ci dëkk boobu di aafe nekk wetu Kaffrine foofu lañ ko jébbale boroomam ndax foofu sax la génne àdduna sëriñ masàmba faati balla buso mi bi mu feeñee jamono ci atum waajuram masàmba la ko tudde ndax bu leen fàtte ne kii di sëriñ buso bi buso amoon na ñaari sëriñ masàmba buso menn sëriñ masàmba buso mi ku ñuy wax kandi buso mi meññu cheikh abdou xaadir mbàkke ñaareelu sëriñ masàmb buso bi mooy sëriñ masàmb buso mi ñuy waxtaane soxna faati balla mbàkke mooy ki ko meññi kon sëriñ buso bi buso ñaari sëriñ masàmb buso la amoon benn bi soxna kandi buso mooy ki ko meññi bi ci des soxna faati balla buso mooy ki ko meññi sëriñ masàmba faati buso bi matee dal alxuraanul karim waajuram sëriñ buso bi buso moo ko dalal alxuraanul karim ginnaaw bi nag la ko jébbal sëriñ tubaa seexul xaddiim sëriñ tubaa seexul xaddiim itam moo ko yar mu nekk nag ko sosoon rëkk nag ci ku baax ki sëriñ sëriñ tubaa seexul xaddim ba tax na lu bare bare bari moom sëriñ Masàmba Faati Buso moo ko baax ki sëriñ tubaa seexul xaddim séq nañ ko ndax bi seex Mamadu Mustapha Mbàkke di taawu ku baax ki sëriñ tubaa seexul xaddim feeñee jamono ci atum 1887 ci dëkk boobu di daaru salaam ginnaaw bu ñu wëree ku baax ki sëriñ tubaa seexul xaddim booba nag mi ngi wër pàkk bu sell bii di tuubaa ginnaaw buñ ko yëgalee ne soxna Aminta Lo am na gan te góor la ginnaaw bu sëriñ tubaa seexul ba gisee kii di seex Mamadu Mustapha Mbàkke Aminata Lo bi Cheikh Modou Moustapha Mbacke waree am aw tur tur wa Serigne Touba Cheikhoul Khadim joxe woon ginnaaw Serigne Touba Cheikhoul Khadim Serigne Massamba Faty Bousso mi mooy ñaareelu doomu aadama bu xam nu Cheikh Modou Moustapha Mbacke tudd ndax kayit wa Serigne Touba Cheikhoul Khadim bindoon ne nañ tudd mu Modou Moustapha Mbacke tur woowu moom la ko joxoon ngir mu jox ko Serigne Bousso be Bousso ngir mu tuddee ko Cheikh Mamadou Moustapha Mbacke booba nag ca kayit wa Serigne Touba Cheikhoul Khadim moor la ca bindoon ginnaaw bu Cheikh Modou Moustapha Mbacke waree amu tur sëriñ bu soobe bu sa ñëwoon àndoon ak maam moor jaara magi mag ngir ñu wutal ci cheikh mudu mustapha mbàkke aw tur ginnaaw bu ñu laajee ana ku baax ki sëriñ tubaa seexul xaddim sëriñ ma sàmba faati bu sa mi moo leen doon xamal ne joxoon nañ ma aw këyit di leen wax ne nañ ko tudde tur wi ginnaaw buñ tàqartee këyit wa nag lañ gis ne moor la ca ku baax ki sëriñ tubaa seexul xaddim bind ñu tudde cheikh mamadul mustapha mbàkke moor ginnaaw bi nag biñ gisee sëriñ tubaa seexul xaddim wala bi sëriñ tubaa seexul xaddim ñëwee laaj na gan gi kan lañ ko tuddee ñu koy wax ne moor lañ ko tuddee kero sa wax nañ ne sëriñ bu soobe biso mi ngi doon laaj ko baax ki sëriñ tubaa seexul xaddiim man moor nga ko tudde ci moor yi ndax kat yow sa waajur di mammoor anta sali mbàkke moor la tudd sa mag ji di moor jaara moor la tudd man mii di sa nijaayiti moor laa tudd te ngeen gi mbindeef sallallahu taala alayhi wa sallam itam moor la tuddu kon ci moor yooyu boo ko ci tudde ci la leen xaadim di leen xamane ngeen gi mbindeef sallallahu taala alayhi wa sallam laa tudde gan gi kon sëriñ Masamba Faati Buso ku jege woon kii di xaadim rasul la ba tax na itam ci bu njëkk dëkk laataa yoonu murit di toll fenn fi nekkoon na ku susun rëkk ci xaadim rasuul ba tax na lu baree baree baree baree bare xaadim rasuul daana ko ko wax ñaare itam kii di sëriñ bu sóobe ak mammoor jaara ak ñi séq xaadim rasuul waajur wu góor buñ masaa jaaxle ci ku baax ki sëriñ tubaa seexul xaadim sëriñ masàmba faati dong lañ yaakaar ni moo leen ci tane ba tax na sosoon na rëkk ci ku baax ki sëriñ tubaa seexul xaadim ndax feeñu jamono seex muudu mustapha mbàkke feeñ na ci ndax tur wiñ ko tudde di mamadul mustapha mbàkke ginnaaw xaadim rasuul sëriñ faati busoo moo ko jox sëriñ busoo be busoo ba tey ci liggéeyub sëriñ masàmba faati busoo ak juróom-ñaar yi gor tuubaa ci fukki nit yaak juróom ba tey itam day seede ne ku susoon rëkk ci ku baax ki sëriñ tubaa seexul xadiim la ci fukki nit ak juróom-ñaar yi gor tuubaa ci la bokk moom sëriñ masàmba faati bu sell bii di tuubaa te sëriñ masàmba faati busoo bokkoon nag ci góor yàlla yi goroon dëkk bu sell bii di tuubaa ku baax ki sëriñ tubaa seexul xadiim nag def na fi lu tollu juróom-ñaari at ginnaaw bi nag la fi bàyyikoo dem sanc nag dëkk bii di mbàkke baari jolof ci jolof jolof dëkk boobu di mbàkke baari jolof nag lu tolloog ñetti weeri yàlla la fa def waajuru sëriñ ma sàmba faati busoo di nijaayu ku baax ki sëriñ tubaa seexul xaddim génn àdduna di sëriñ busoo be busoo ginnaaw bu sëriñ busoo be busoo génnee àdduna nag lu tolloog weer wu manqué ay fan wala weer ak benn fan la seexul xaddim defaat nag ci dëkk boobu di mbàkke baari jolof tubaab bi nag teg ko loxo ci le 10 août 1895 le 10 août 1895 boobu bi sëriñ tubaa seexul xaddim di dem ci géej gi kii di sëriñ ma sàmba faati busoo mu ngi ci diggante tuubaa ak mbàkke bawal ak nag dëkk bii di daaru marnaan ci loxoy maam ceerno ibrahima faati mbàkke ndaamal daaru ba ni sëriñ tubaa seexul xaddim ñibbisee ci géej gi ginnaaw bu ko baax ki sëriñ tubaa seexul xaddim ñibbisee ci géej gi sëriñ ma sàmba faati itam def na comme ni ko mag ñëpp defee yeesalaat ak njébbalam jaayante ku baax ki sëriñ ba seexul xaddim nekk nag ab taalibe bu dëggal lu toll juróomi weer nag wala juróom benn weer la fi ku baax ki sëriñ tubaa seexul xaddim defaat amaat fi takk nag ak mbaaxaan tubaab bi duggaat ñu boot sëriñ tubaa seexul xaddim ci réew mi di gànnaar gànnaar googu nag sëriñ ma sàmba faati bu seytim dem na fa ziyaare ji ku baax ki sëriñ tubaa seexul xaddim ginnaaw gànnaar ca yéen jolof ca yéen jolof itam kasaalika ginnaaw ca yéen jolof njaareem njaareem googu itam kii di sëriñ ma sàmba faati itam daana fa dem seeti ku baax ki sëriñ tubaa seexul xaddim njaareem googu sëriñ ma sàmba faati bu sa daana def ñaari weer yu jot mu ñëw fa ci diiru fukki at ak juróom yi fekk ku baax ki sëriñ tubaa seexul xaddim am ba tax na ànd naa ku baax ki sëriñ tubaa seexul xaddim moom sëriñ ma Masamba Faty Bousso ci diiru fanweeri at yu mat sëkk ngir di ko tarbiya ak di ko liggéeyal ngir waajuru sëriñ Masamba Faty di sëriñ Bousso bi Bousso di nijaayu ku baax gi sëriñ Tuubaa Seexul Xadiim moo ko jébbaloon sëriñ Masamba Faty te booba sëriñ Masamba Faty Bousso tu tànk la loola itam taxoon nag kii di sëriñ Masamba Faty sàmmoon na loola ba taxoon na mu jëloon léppam jébbal Xaadim Rasuul jël googu mu jëloon léppam jébbal Xaadim Rasuul ci lool nag ci la sax ba ni mu jotee ngërëm ci jëmm jooju su suñuy wax soxna xari faa ñang mu dëkkoo ko soxna xari faa ñang mi sax moo meññi taawam bii ko njëkk a wuutu di sëriñ muudu xari buso ginnaaw bi nag bi sëriñ tubaa seexul xaddim joxee mag ñi ngir ñu dem gor ay dëkk kii di sëriñ ma sàmba faati buso itim nag sëriñ tubaa seexul xaddim joxoon na ko ndigal itim mu dem gor ab dëkk comme ni ko mag ñëpp defee ñu tudde ko daaru nixmati daaru nixmati nag mi ci ginnaaw gede digganteem ak baxdaat ci côté boobu la daaru nixmati nekkoon foofu tax sëriñ ma sàmba faati buso nekkoon na fa di bay ànd ak nag mbooloo mi ko ku baax ki sëriñ tubaa seexul yaakaar ko góor yàlla yooyu mu àndaloon ngir góor dëkk boobu di daaru nixmati ñu mën cee ràññi ku ñuy wax sëriñ muudu ja mën cee ràññi ñuy wax sëriñ muudu faal mañax mën cee ràññi ku ñuy wax sëriñ ibrahima caam ak ñeneen ak ñeneen ñu sëriñ ma sàmba faati àndaloon ngir góor dëkk boobu di daaru nixmati wala tool yooyu di daaru nixmati te nekk nag ci suuf sii nag di géde foofu nag la nekkoon di liggéey di yar ak di jàngale ak mbooloo mi ko toppoon ngir jëmmi xaadim rasuul ji boole kook nag nekk nag ci dëkk bii magam féete di ak di daaru nexmati ba nim génnee àdduna ci atum 1930 moom ma Masamba Faati Buso ku jaxasoo woon ak njabootu ku baax ki sëriñ Tubaa Seexul Xadim la ndax waajuram di soxna Faati Balla Mbàkke moom Mamor Anta Sali Mbàkke mi meññi Xaadim Rasuul ñoo bokk Maam Balla ba tey sëriñ Buso bi Buso mi ko meññi mook soxna Jaaratullaahi mi meññi Xaadim Rasuul ñoo bokk sëriñ Ma Buso sëriñ Masamba Faati Buso mook ku baax ki Tubaa Seexul Xadim bu doonee ci wàllu waajur wu jigéen kenn ku ne sa doomu nijaayu moroom nga bu doonee ci wàllu waajur wu góor góor kenn ku ne sa doomu bàjjanu moroom nga ak mbokk moom moo xaadim rasul amoon nañ ko mbàkke xaadim rasuli moo xam maam cheikh anta mbàkke maam cerno ba ci maam moor jaara magi mag bu doonee maam moor jaara magi mag lim bokk ak xaadim rasul rek la bokkal ak maam moor jaara magi ba tax na itam bi fi maam moor jaara magi mag bàyyi ko waajur sëriñ abdu xafoor mbàkke moom maam moor jaara di soxna awa géy sëriñ masamba faati buso lañ ko jébbaloon ba tax na am naa moom ak njaboot njaboot googu mu am ak kii di soxna awa géy te kii di maam moor jaara magi mag dëkkoo woon faati buso ci amee ku ñuy wax baay sëriñ buso bangaaj yeneen rakki ku baax ki sëriñ tubaa seexul xaddiim moo xam maam ceerno moo xam maam cheikh anta mbàkke sëriñ aafiya ak ñeneen ak ñeneen kii di maam ceerno mbàkke ndaamal daaru xaritam la woon soppeem la woon ba tax na ñoom ñaar ñu jaxasoo woon lañ woon ba tax na ku baax ki sëriñ tubaa seexul xaddiim bi mu demee ci géej gi ci atu 1895 ba atum 1902 sëriñ masamba faati buso ci diggante maam ceerno ak magam sëriñ seexu buso la daa jaabante muy diggante daaru marnaan ak mbàkke bawal ak maam Cerno Ibrahima Faati Mbàkke ndaamal daar tim séqaatoon nañ gëneen ko gu yaatoo yaatu ba tax na ñetteelu xalifaam bii ko wuutu di sëriñ Ibrahima Buso mbir kilaan maam Cerno Ibrahima Faati Mbàkke ndaamal daaru la ko duppee keroog bi waajuru maam Cerno Ibrahima Faati Mbàkke ndaamal daaru génne àdduna di soxna Faati Ise Jéey bokk na itam ci ñi mujjee laal kii di soxna Faati Ise Jéey ci ndigalul ku baax gi sëriñ Tuubaa Seexul Xadiim kon moom maam Cerno amoon nañ ak kóllëre gu mook sëriñ jigéen muy soxna faati balla mbàkke ba tax na sax nekkoon na ci gédé googu ci sëriñ bu buso foofu sax la génne àdduna ci kër gi mu amoon ci gédé muy kër gi nekk ci gànnaarub jumaa ji te jàkkaarloog jumaa ji ci kër googu la génne àdduna ci fukki fan ak ñeent ci rakkaat ji gàmmu ci atum 1930 ba tax na itam ak njabootam sëriñ bu buso moo leen yar njabootu ku baax ki sëriñ tubaa seexul xaddim moo xam seex mudu safa mbàkke ndax amoon nañ ko lëre gu yaatoo yaatu ñoom ñaar neewoon naa leen keroog bi seex mudu mustapha mbàkke feeñee jamono la seexul xaddim bindoon turu cheikh Modou Moustapha Mbacke ci loxoy sëriñ Massamba Faty Bousso mii la ko tegoon kon am nañ akóllëre gu yaatoo yaatu cheikh Mouhamadul Fadal Mbacke naka noonu nijaay la woon ci cheikh Mouhamadul Fadal Mbacke soxna Awa Bousso ak moom mii ñoo bokk sëriñ Bousso be Bousso yeneen mag ñim bokkaloon ëttub ku baax ki sëriñ Touba seexul xaddim naka noonu fukki nit ak juróom-ñaar yi gor Touba ci la bokkoon te ñoom ñépp amoon nañ akóllëre ngir seexul xaddim xam naa daal ku bëgg lim ku sëriñ Massamba Faty amoonoon kóllëre daa daal bépp mag mum bokkaloon ëttub xaadim rasool bi amoon nañ ko ndax jëmmi xaadim rasool ji sëriñ ma sàmba faati buso mi ngi génn àdduna ci feebar bu ko tëral ci atum 1930 ci kër gi mu amoon ci gede muy kër gi jàkkaar jàkkaarloog jumaay gede ji te féete ko gànnaar ci kër googu la génnee àdduna ci feebar bu ko tëraloon bisub talaata fukki fan ak ñeent ci weer wi di rakkaat ji gàmm ci atum 1349 ci gàddaay gi talaata fukki fan ak ñeent ci weer wi di rakkaat ji gàmm ci atum 1349 ci gàddaay gi dëppoo muy mardi 7 octobre octobre 1930 mardi 7 octobre 1930 la sëriñ Masamba Faati Bousso mi na génn àdduna ñu yëgal ko ki fi nekkoon xalifa général des mourides di cheikh Mamadul Moustapha Mbàkke mi wuutu woon xaadim Rasuul ci teewaayu magam sëriñ Mbàkke Bousso ndax boobu kat mi ngi ci gede googu ci magam ci sëriñ Mbàkke Bousso sëriñ Mbàkke Bousso moomu la cheikh Mamadul Moustapha Mbàkke mi toogoon toogaayu xaadim Rasuul wax nag mu taxawu rakkam jooju di sëriñ Masamba Faati Bousso sëriñ Mbàkke Bousso moo ko taxawu moo ko jullee ñu jébbal ko boroomam armeer yu mag yi ci teewaayu nag mbooleem kilifa yi fi nekkoon jamono jooju sëriñ Masamba Faati Buso moom bi mu génnee àdduna doomu ndayam jëddi sëriñ Mbàkke Buso sax defal na ko ab marsiya wala wenn way wum ko jagleel ngir di ko ca ñaan ak di ko ca jooy ca biir way wa wala ca biir marsiya ba kii di sëriñ Mbàkke Buso ma ngay wax ne sama doomu nday ja génn àdduna di sëriñ ma Masamba Faati mooy ñaareelu sama doomu nday bu génn àdduna ci wenn weer woowu at ak juróom la toll at mi mu génn àdduna nag mooy atum 1349 ci gàddaay gi ñu teewlu marché bi ko sëriñ Mbàkke Buso defal wala wenn way wi mu ko jagleel ngir ji ca jooy doomu ndayam jooju di sëriñ Masamba Faati Buso wa saqina saani masaba umruhu haynu wa nisfu tamtasin ja amruhu loolu mooy way wi doomu ndayam defal di sëriñ Mbàkke Buso ginnaaw bu mu génnee àdduna moom sëriñ Masamba Faati Buso ngir di ko ci jooy ñàkk googu mu ñàkk doomu ndayam jooju di sëriñ Masamba Faati Buso sëriñ Masamba Faati Buso nag ay xalifa Fam nii la tëddee ci atum 1930 ba atum 1998 Serigne Modou Khary Bousso moo ko wuutu Serigne Modou Khary Bousso mi sax keroog bi Cheikh Modou Moustapha Mbacke di génne lox lii di xiblay jumaay Touba ji moom la Serigne Mbacke Bousso yebal mook Serigne Mouhamadul Baaxeer Bousso mii doomam moo ko wuutu ci atum 1930 ba atum 1993 ñaareelu xalifa Serigne Massamba Faty Bousso mooy ku ñuy wax Serigne Abdou Salam Bousso moo ko wuutu ci atum 1993 ba 2011 ñetteelu xalifa Serigne ma Masamba Faati Buso mooy ku ñuy wax sëriñ Ibrahima Buso Mbirkilaan sëriñ Ibrahima Buso Mbirkilaan mi sax moom la faye maam Ceerno Ibrahima Faati Mbàkke ndaamal daaru nekkoon ab wóllëreem akub soppeem turandoo maam Ceerno Ibrahima Faati Mbàkke wi moo ko wuutu nekk ñetteelu xalifa sëriñ ma Masamba Faati Buso ci atum 2011 ba nëgëni ñu koy ñaanal suñ boroom guddal aw fanam te wéral ay cëram te yàggal ko nag ci toogaayu njabootuk sëriñ Masamba Faati Buso mook ay rakkam ak mboolem ñum sëriñ Masamba Faati Buso sëriñ ñetteelu xalifa sëriñ Masamba Bousso moo nekk itam xalifam bu soobe ndax jamono ji ñuy wax ak yéen ci képp ku sant Bousso moo ci mag sëriñ ma Masamba Faty Bousso nag am na bis ñu koy fàttaliku muy lu ñu tudde ak màggal waaye njaboot gi nag bisum ñaan lañ ko jàppee muy bis bi mu génnoon àdduna dëppoo woon nag muy fukki fan ak ñeent ci weer wi di rakkaat ji gàmmu ci atu 1349 ci gàddaay gi dëppoo woon nag muy talaata juróom-ñaari fan ci mois de octobre ci atu 1930 fukki fan ak ñeent yooyu ci rakkaat ji gàmmu nag la njaboot gi jàpp saa bu ñu ko ciy fàttaliku ci li ñu tudde ak ñaan di ko wàcceel ay kaamil ngir suñ boroom yërëm ko ci foofu mu tëdd ñuy ñaan ci doomu sëriñ bu sooba ba ak soxna maam faati mbàkke ba yal na suñ boroom yokk ay leeram te taas ñu ci barkeem te wanale ko kam doon liggéeyal di xaadim rasuul lii di jafe-jafe réew mi itam na ko suñ boroom saaf